micro yi nañu wàcc. voilà allez-y wàcc madame Adji Raby la somme de 20 millions solidairement avec Ndeye Khady Ndiaye. c'est une satisfaction pour les avocats de mais pas une satisfaction totale. Nous aurions voulu la condamnation de M. Sonko à un minimum de 10 ans ferme. Mais nous sommes obligés de nous plier à la décision souveraine des juges de la chambre criminelle. C'est le verdict qui a été prononcé. Et le viol n'a pas été Le viol n'a pas été retenu. à ses parties intimes, c'est comme un viol. Donc que les autres là ne crient pas victoire. La victoire, c'est qu'on n'a pas nié l'existence du contact sexuel. On n'a pas à la jeune fille. On n'a pas nié l'existence de sperme. confirmé par le laboratoire du CTO. Donc la culpabilité de M. Sonko a été établie et retenue par les juges de la chambre criminelle. Par conséquent, nous avons une satisfaction, c'est vrai, un peu mitigée. On n'a pas une satisfaction totale sur toute la ligne. L'on propose, je dispose. Mais nous avons au moins une victoire, une grande victoire, sur une personne qui a toujours menacé les juges, qui a menacé la société, qui a menacé l'État et qui se croyait au-dessus de l'État, au-dessus des juges et qui n'a même pas respecté la chambre criminelle en refusant de se présenter devant elle. Par conséquent, par conséquent, jugé par contumace, l'homme Ousmane Sonko doit aller en prison pour deux ans. C'est donc une satisfaction morale. Euh, de votre client Oui, oui, ma, ma, ma cliente comme moi n'est pas satisfaite, Donc d'exercice de la puissance sur Adjissar, pour pouvoir accéder à son intimité. Nous allons nous concerter pour voir tout cela, mais pour le moment, laissez-nous laissez-nous fêter notre victoire. nous, ne sommes pas satisfaits totalement, mais nous sommes satisfaits en partie. Donc nous avons une victoire. On n'a pas une victoire totale, mais on a une victoire sur un homme qui a essayé d'intimider la justice d'intimider l'État, de montrer que si on le condamne, ça va faire hein, euh, exploser le pays. On va vers le chaos si on le condamne. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est condamné à deux ans de prison ferme. Et il a été déclaré coupable. Donc Ousmane Sonko est un coupable. Mais ci xale waayam ci ñàkk dooleem nga abusé ba mën a tëdd moom kon loolu kon la Adji Sarr waxoon en partie nangul nañ ko ko loolu indi ñaari at yi nga xam ni Ousmane Sonko war na ko tëdd ci kaso bi kon suñu mbégte am nañ mbégte bu rëy waaye mbégte bi may ma may ma am nañ tey mbégte bu rëy mbégte bu rëy mooy Ousmane Sonko dafa gëm la woon Sénégal yi dafa am doole ba tax bi ko war a dëkk bi di bëgg a toj muy yàq dëkk bi di taalu dëkk bi bëgg a jaay doole juge di leen intimider di saaga saaga moom Ousmane Sonko ba ñëpp demoon nañ ma foog ni kenn ñemewul àtte Ousmane Sonko mu sell mi tey tribunal wala na ni Ousmane Sonko sellul na tëj na ko ñaari at yoo xam dafa ne ko am na loo seeg ak xale bu jigéen boo xam ne danga nga ko jaay doole danga nga ko woon da ah, ko woon mu ragal la nga am noo def ak moom kon dama tëdd ñaari at kaso kon xam ngeen ni wedd wu ñu seq na dara xale bi waaye viol dañ naan viol mooy loo xam ni xale bu jigéen bi d'accordu ci. ndàmpaay bi nag du toll si ñaata la lan lay joxe ci koppar. waaye yoon nee na ginnaaw mu tëj ko ñaari at yu war a tëdd fii ci kaso bii jege bii ku ñëwoon bu ñu ko tëjee dëkk bi tàkk yoon am fit tëj ko mu war a fay six cent mille francs amende ëlbatiku yëkkati ñaar fukki million moom Ndeye Khady Ndiaye ñu jox ko ndàmpaay solidairement a à Adjira bi Saar kon ku deful dara doo tëdd ñaari at ku deful dara doo fay ñaar fukki million kon tey am nañ ndam lu rëy waaye ndam li mënoon naa gën a rëy nag buñ ko ñafoon fukki at buñ ko dóoroon fukk. Ndeye Khady lan lañ ko daan ba pare. waaw dañ comme li si la def viol comme rejeté nañu viol ko tëj ci loolu. am na incitation à la débauche kese la. waaw moom mooy jël xale jigéen di leen di leen def loolu dul noonu. est-ce que di ngeen def appel maître. loolu dinañ ñoo xool ndax sur client sur client am na mbégte mais am na lu ko naqari. li ko naqari mooy mu doon nekk kim jiiñ ñu tëj ko fukki at ndax loolu loolu viol loolu wax waaye bañ ko tëjee ñaari at du am mbégte yaakaaroon mais comme moom ponkal la moo xam ne ñu bëree ko ragal ci réew mi ñëpp foogoon nañ ne buñ ko tëjee. dëkk biir tàkk foogoon ni kenn ñemewu koo tëj lu mu def rek day dem fee menacé oote ay meeting rassemblement gatsa gatsa pour ñëpp ragal waaye gatsa gatsa massa massa deux de massa massa la. kañ le droit a été dit selon le droit a été dit puisque ñenn ñeneen ñi peut-être. bi mooy apprécier. ñun après on commente rek comme yow. a bokk si élection yi am nga si cadre. loolu loolu yàgg na depuis Mame Mbaye la bokkatul. tëdd bi kañ la koy wàcc. depuis depuis li ko li ko tëjoon ci Mame Mbaye ci la nalaw bokkatul. bii bi ñu da cee yokku rek. ah tëdd heure bu ko yoon bëggee rek heure bu neexee yoon jëli ko. ni ko dem kaay tëdd. merci beaucoup jërëjëf. merci d'accord. non continué heure bu nekk lu jàpp. d'accord euh, ci biir ku moom lii. eh. ñoo moom lii.